jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf naaru Sëñ Fàll mu ne day indi barkelom ci caxat caxat nag naa joxe secret boo xam ne def gis la waaw waaw naaru Sëñ Fàll ko wax de legal bu alxames ci suba balaa naa génn nga dem fu ay caxat am nga gas juróom-ñaari caxat caxat boo ñëw nga nuyu ko naam lay soo amee sànqal mën nga ko faa suy sànqal salaamualeykum naam lay caxat naaru suñ fàll mu ngi lay nuyu am sa sànqal daal ko fay suy boo gasee ren bi nag boo fi fekkee ay sànqal lañ wala ay ay ay ay mala nga bàyyi ko nga sulaat ndànk bàyyi ko soo gasee boo xam ne fekk ko fay sànqal lañ ko fay ngar fekk ko fa ay xorondoom nga gas gasal ba sori ci ren bi rek nga dagg ko moom ñaari ëpp benn ren lay fal di nekk boo ko daggee nga am ci juróom-ñaar ren ci xar yu bokkut juróom-ñaar ren yu bokkut bu ne nga jàng fàttelu kitaab ak sànqal nga jënd ko juróom-ñaar yi boo ñëwee bi sa kër toogal nga wut sa kayit nga bind alam nasara ak ngi jégalu bind alam nasara juróom-ñaar yoon ci benn fooy nag juróom-ñaar ci benn fooy la naar suñu fàll wax nga laxas ko ci juróom-ñaar ren ci xar yépp de sànn nga dem wuti wutee njaqaloo xam ne ndey caam baay caam ki defar njaqali yaayam day sant caam baayam sant caam moom kenn waxaale ko na xam ne ku sa baay caam ku sa baay sant caam ngay sant boo ñëwee nag nga am njaq loolu nga jël mbind ma ci kër doom nekkoon laxas ko ci juróom-ñaari na ci xat ya takk ko tàbbal du jël njaq su du ci ndox tàbbal ko ci biir ak a naqaree sangu laa ko bar boo koy sangu nag dangay ngay xëy di sangu rek saa woo xëy sangu rek soo ko defee yàlla mën laa sutaa nga am som bu am doole waaye som bi nag du nekk xaalis bu ndaw xaalis bu takku lay doon bu ñëwee nag naa suñ fàllu nee na li nga ci njëkk a def li nga ci njëkk a def na nga lu am kawar lu am karaw mel ne xar wala bëy wala nag sans dépasse som ba na muy toll ba am ni muy toll na nga ci njëdd xar yow ko pay doogal doog caa commencé lekk lu ko mooy léppay dem bu tola njëgu bëy torom bëy nga jënd nga jënd bëy yeew la des nga dog koo lekk boo xam ne mën naa jënd nag des aw des am solit nga jënd nag yeew doog caa commencé ñu mos ci wàccere waaye loo ci lekk te defoo ca lii ma la wax da nga xar ma boo xas jënd yeew ko rek moom day dox mën naa yàgg lool waaw lii daal naaru suñ fàll moo ko wax comme neex nga nga jarabu ko beneen bii sooy gas ren boobu ku ñëw nuyu la même bu dee ku ku bokk yow ndey baay bu ko fay du moom rawaan bala boo koy sangu it boo géntee say say jigéen ndax léeg-léeg ñëw di la yàqal fa koy gase mu ñëw nuyu la doon doon doon doon doon jëmm ñëw nuyu la di jaay ko soowal leen bu ko fay nga sal rek sëggal rek bu dee ko bokk yow ndey baay bu gëm sëggal rek boo gasee pare na ba juróom-ñaari ni mat na moom ba nga ñibbe sa këroom sañ ngaa nuyoo boo koy jëfandikoo léeg-léeg bu la fekkul foofu léeg-léeg boo ko jëfandikoo di ko sangu mën naa jekk-jekk mu dikk la jigéen ju rafet sàkku la boo seeg moom boo xëyee sa commencé waatal